GMI ak euh, élément police ñoo fa nekk ñeneen ñu ngi leen di romb sànq ba léegi ñu civilu waaye Birahim ñu ngi jéggalu ci jokkoo bi ñu doon def ak moom sànq ay jafe-jafe euh, euh, technique la incha allah xëy na dinañu débat yaa xam ci biir journal bi xam naa dinañu débat ci biir journal bi waaye ñu fàttali rek bu ñu mel ni nekkaat na ci ligne bi kon ah, ñu dem ak Birahim Touré. alors Birahim dafa mel ni sànq jafe-jafe jokkoo léegi yaa ngi en direct euh, ak daa mel ni maire bi nga taxawal voilà d' accord alors euh, comme euh, réseau bi la waaye monsieur le maire ñu ngi ko doon wax sànq Médina ñu koy tudd ci lu xaw a ñaaw ndax euh, ñëpp a ngi respecté waaye koñ bi di Médina wala gox bi nga xam ne yaa ko jiite euh, daanaka loolu xaw fee jafe. waaw loolu dëgg la sax waaye xanaa Médina moo siiw rek moo tax ñëpp di ci wax. waaye boo duggee ci yenn quartier ci banlieue bi ak Dakar police sax dafa jaar boo seetloo pratiquement ci axe yu mag yi kese la gars yi nekk waaye ñu ngi koy jéggalu toujours mais boo xoolee tey 99 virgule 9 pour cent yëpp gisoo leen ci mbedd mi benn benn ngay romb te police nga def liggéeyam te gis nga sax ñun am na ñu bari ñoo xam ne bi ñu leen rombee dama wax ak ñoom ñun dugg leen tëj leen seen kër ñu tëj ko donc yàlla baax na li fi jot a jaar nag ñu ngi koy jéggalu ndax xale yi nañ sax defuñu ko pour yàq dañoo gisoon rek seen mbokk xam ne dañ leen a yóbbu woon bañ ñàkkoon ci yaakaar ñuy ñëw dara jotu leen ñoom ñu xam ne kon ñoom ñu leen doon fréquente dara jotu leen waaye ñu ngi jéggal bu baax lakk gi amoon tamit ñoom xale yee fay lakk gi avant sapeur yi nañu dugg nag parce que du excuse waaye toogaayu mbedd mi tamit baaxul woon kon boog ñu ngi jéggalu ñëpp di wax tamit nii am na ñoo xam ne bu ñu critiqué ndaxte seen koñ ñi am na lu raw loolu lu fa nekk Medina fépp am tali moo tax mu neex a feeñ ndax oto yi scooter yi wër mais nga xam ne du koñu tali du koñu bi ñu bëgg a di ko yuuxu am na koñ ñu ko gën a bon fop ak dëkk yu ko gën a bon fop Mm. erreur nag am na ñu ngi mais mais teewul waxtaan ngeen tamit ak ndaw yi ndax ñu ngi koy fàttali démb 85 personnes la ñu wax ni téye nañ leen est-ce que yéen a ngi def sensibilisation boobu ndax gis nañu sànq bi ñuy dugg ci biir Médina ci koñ yi euh, bu ci mel ni 22 37 ak yooyu yéen a ngi waxtaan ak nit ñi nañ dugg seen biir kër. waaw mais góor gi wol ma ko góor gi lu muy dox ba naka ni sëñ bi waaye foo foo jëm heure bi foo jëm. HLM xanaa yëgoon ni 20 heures kenn dootul génn. ah mais amoo masque tamit. waaw oh, yaakaar naa ni euh, xam nga loolu tamit leer na euh, euh, ñi ngeen di gis am na ay takk der ci biir ak yu ni mel waaye daal monsieur le maire de manière moom ci boppam moom may def ci sensibilisation bi ànd ceeg ñenn ci ay adjoint ak ay sécurité mhm. lépp ngir daal nit ñi mën a respecté couvre-feu bi ndax way bi ñuy bàkkee Médina mën a fay mu doon way bu baax ñu bari nag ñu ñu waa Médina parce ñu bari tamit dañ ñoo rax parce que Médina ñi fi dëkk bëri na mais ñi fiy jaar pour ñibbi dafa bëri kon bu ñu xoolee lim boobu ñu wax ñu ci bëri duñu waa Médina dañ fay jaaroon pour ñibbi voilà kon euh, dégg nga ko El Hadj Mamadou Mansour Diop Ndeye Khady Thiam Tall leer na monsieur le maire mu ngi défendre population waaye tamit mu ngi artu population pour daal ñu am waaye bu rafet El Hadj Mamadou Mansour Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax jaajëf Birahim Touré waaye alaaji lu ci mënti am daal imaam yaak ñi nga xamante ni ñoom ñooy chef de quartier yi nekk foofee ca Médina ñu ngi sàkku ci autorité yi ñu gën a daral li nga xamante ni moom moo di nag euh, rek euh, euh, sanction yi waaye tam di sàkku ci wayjur yi ñu sàkku ci seen i doom ñu des ci seen biiri kër ñu dem ca diwaanuk Touba foofu nag daal dinañu gis rek ni amaat na yeneen ñeenti cas yu yees ñeel commune contamination